Euh, mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci fasante kóllëre gi wuute gi ci tànn gi su FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyeekoo Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan euh, juróom-ñeenti waxtu bisimila ci xibaar yi. Euh, dox ëpp ñaxtu ñoo lànk buntu université ñoom étudiants yi nee ñu daal di ni mel nangu nanguwuñu ko ndax nag bés boobu dafay yëmook ak yenn ci xew-xew yu fay daal di nag amal bokk na ci mbirum fàttaliku kii di étudiant Balla Gaye ba ñu boomoon dinañ ci dikk ci ndorteelu xibaar yi lay doon seen doxub ñaxtu boobu ëllëg bokk na ci wax sa xalaat yi gannaaw beneen collectif bi daal di samp tuddee seen bopp euh, ñoo lànk authentique seen i doxalin tey tax na tey médiateur daal leen dalal waaye ñoo lànk rek jàpp ne dañ leen bëgg na saxal waaye li ni mel du jàll dinañ ci jukku ci ndubir xibaar yi lay doon euh, wàllu cadre unitaire syndicat bi ëmb wàllu santé ñoom itam euh, grève la ñu jëm ñaari fan ñaar fukki fan ak juróom jàpp juróom benn ci weer bi ñu nekk ñi leneen lañ ci daal di rek xamle mooy seen i revendication yi ñuy daal di délégation ak yenn ñi ñuy daal di nag licencié te ànduñu ca eh, dinañu dem booro foofee nga xam ne nag ñetti fan yoo xam ne nag askan wa eh, daanaka am ñoom ndox la ko waral mooy repreneur bu Aquatech moo leen daal di xañ ndox la ko waral itam mooy seen facture yi nga xam ne waroon na ko fay Senelec ñu ne ba léegi daal mbir ma jàppandiwul ba tax ñu ci interpellé état bi dinañ ci jokkoo ji ak Babacar Sow ci biir xibaar yi lay doon ndaje beneen bi ñu daal di nag amal ngir daal di xool nañuy def ba joyante gox goxaat yi eh, ca Kaffrine daal nañ koy rek gis nañ ne nag barab ba mu nga ca li ñuy duppee zone rouge ndax yu bari ci ay jafe-jafe amee nañ ko wàllu yoon wàllu nag barab yi ñuy amee njàng beeg njàngale mi euh, courant ak ndox am na dëkk ko daal nag amul ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk wàllu wi Mansour Faye lay fii amee woon euh, dinañ ci dikk dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñu ubbi antenne bi ci wax sa xalaat lay doon xibaar yi daal di buur euh, beneen ponk wax sa xalaat bi mu aju woon rek ci wàllu déguerpissement yi jafe-jafe say faral faram-fàccee Guinness Kiss lay doon. Adama Ndione euh, ñu dooree ko ak ñoo lànk ñoo bañ ci àjjuma ëllëg gi rond point UCAD lañ ko bëgg a dooree di université bu Ndakaaru ba poste Médina étudiants yi nag ne ñu duñ ca daal di laale euh, ba tax ñu ngay artu opinion nationale ak internationale bi daal ne li ni dañ ko nangu ndax dafa leen di rek euh, jaxase seen i bés bi nga xam ne dañ ko daal di nag am ca campus ba yem ak ñuy fàttaliku kii di étudiant Balla Gaye ñu boomoon ko ak Mamadou Diop ëllëg lañ ko fas yéene rek mandargal Cheikh Mansour Thiam. yore seen kàddu collectif étudiant yu université ñu déglu ko Birama Ndiaye. comme euh, nuñ ko constaté ñun ñëpp ci marche bi nga xamante ni marche euh, nationale bi nga xam ne waa mouvement ñoo lank dañ ko bëgg a organiser fii ci Dakar ak ci yeneen régions yi ci Sénégal te départ bi ñu bëgg ko jëlee université Anta Diop dañoo woote woon ndaje mi pour def alerte nationale. ba même que international mais di ci jiital nag suñ mbokk étudiants yi yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci université Anta Diop parce que marche boobu noonu mun na favoriser li indi problème fii ci campus bi te tey fi ñu toll nii vu la situation li ñuy ñaan bëgg ko ñun ñëpp mooy campus bi am apaisement pour que suñu rakk yi fi ne mën a dem jàngi normalement mën a admis seeni examen normalement am réussite bi nga xamante ni seen i mbokk ak seen i waajur loolu lay xaar si ñoom parce que université Cheikh Anta kenn ku ci nekk xam na ne opinion nationale bi wala internationale bi image bi mu ko jox par rapport ak situation yooyu noonu rafetul donc tey jii nii dañ naan étudiants yi fekk ay nit ñoo jógee ci biti di manipuler étudiants yi wala ñuy nekk ay intrus si biir étudiants yi di def yoo xamante ni tey du day day yàq deru étudiant bi moo waral suñu taxawaay bii nii nii nii tey bon liñ ciy ragal rek mooy déstabilisation parce que suba ku ne xam ne ne journée la boo xamante ni étudiant depuis la mort de Balla Gaye ba léegi journée la boo xam ne étudiants yi dañ ciy fàttaliku dese Balla Gaye ak suñu yeneen mbokk yi nga xam ne aussi ñàkk nañ seen bakkan fii ci euh, xeexu étudiants yi ñu leen ciy fàttali mu doon journée boo xam ne journée la pour jàng euh, alquran jàng ay xasida ñaanal leen fàttaliku suñu mag yooyu noonu nga xam ne jiitu woon nañ fi aussi tamit di delloo njukkal seen famille yi pour wan leen na leen du ñu dem mukk di fàtte suñu férédo yi nga xam ne tey jii nii si xeexu étudiant si lañ ñàkkee seen bagaan maanaam journée la boo xam ne tristesse la si étudiant donc bi ñu toogee di sentir yenn Euh, marche yooyu noonu wala menaces yooyu di jëm si suñu université bii nii buñ ci waxul rek dañu nekk ay responsable euh, beneen collectif ñoo lank bi di woyo ci authentique yi ñoom euh, te yi médiateur de la république daal na leen dalal ñu dal wàllum courant ji am ci saafara rek moo leen tax a jóg wàllu politique ñoom doxuñu ca Marie Rosalie Ndiaye ci gis-gisu collectif ñoo lank authentique seen bëbët bi nga xam ne moo di fexe ba toog waxtaan ak njiitu réew mi day wane rek ne seen xeex li ko yëkkati moo di ñu wàññi njëgu courant bi ñu yokk dañoo jàpp nag ne ci mbedd mi la ñu mën a indi saafara ci mbir mu ni mel Mame Cheikh Seck di coordonnateur bu ñoo lànk authentique. nemmeeku ngeen ni le 29 novembre ba tey donc am na ay série de manifestation le 21 palais de l'indépendance le le le le le 13 euh, donc palais de l'obélisque ensuite le 10 janvier récemment palais de l'obélisque et chaque fois gis nga ni ñi ngi manifester ba yóbbu ba transférer sa manifestation au niveau des régions donc au niveau de la banlieue donc ñëpp constaté ne xeex. donc moom def nañ ko pour wane ne d'accord ñu yokkute courant bi waaye gannaaw nag daje na nag médiateur médiateur tamit euh, bëgg jàmm dem gis ak njiitu réew mi pour que ñu waxtaan mais lii attitude bu responsable mooy ñu waxtaan. te bañ posé nag benn condition. collectif bi di xam ne ni bu weesoo lu soxal mbirum courant bi ñu yokk amul dara lu ñuy mbëbët. combat bi moom c'est c'est un combat strictement en caractère social donc amul dara loo xam si ni day dugg ci leneen pour ñu yokk pour que ñu wàññi yokkute courant bi la bu bu bu président bu nguur gi dellu see ci loolu donc combat bi amatul benn raison d'être collectif bi dañ koy supprimer. ñeneen ñi nag ñoo nekk ci beneen dynamique boo xam si ni ñoom dañuy nekk ci politique. vraiment ñu ngi ci agenda politique. léegi ñoom bu lu c'est sûr que même tey jii bu nguur gi dellu si waatoon ci mesure bi supprimer si kii bi sax ñoom danañ continuer le combat donc ñoom lii taxu leen a jóg. médiateur de la république maître Alioune Badara Cissé di rafetlu taxawaay bi nga xam ne collectif bi am na ko te nee na dina ci def lépp li ko war ndax loolee lañu ko sas ci réew mi. Euh, ci réew mi ñu daal dikk ci beneen euh, fànn wàllu santé cadre unitaire syndicat bu santé googu ñoom it ne ñu ci grève la ñu jëm ñaar fukki fan ak juróom ak juróom benn ci weeru février bi la ñu ñaawlu mooy euh, ñenn ci seen ñoo ñuy affecté ci anam bu jaarul ci yoon nag ñoo ñuy daal di nag dàq ci seen liggéey boobu waaye itam soppite lu aju ci wàllu payoor gi wax nañ ko ci bu ñu sukkandikoo ci Arona Diop mi secretaire général bu SATS ñu teewlu ko ak Birama Ndiaye mooy ñu dérouler suñu deuxième plan d'action ci jafe-jafe bi nga xamante ni liggéeykatu secteur bi am nañ ko ak ministère de la santé ndax lii mooy suñu deuxième plan d'action mënuñu comprendre ni ñu ko yoon mayee ni boo déposé préavis de grève dañ la war a woo waxtaan ci point yi nga xamante ni moom ngay ñaxtu point yi nag ñu leeral ko mooy état dafa décider relever niveau bi ñuy duggee ENDSS ci baccalauréat mooy kon infirmier bi sage-femme bi bu génnee dafay am niveau licence waaye mu technicien supérieur ak ñi nga ni ñoo leen di jàngal ba nga xamante ni ñoom ñëpp ci benn corps bi lañu nekk bi war a am beneen niveau loolu nag ñu xeex ko bañ jàpp ni war nañ ko régler ñu ne kon technicien supérieur yi dañuy wax léegi ay administrateur de soins léegi dañ leen yóbbu ci hiérarchie A2 infirmier sage-femme yi ñu yóbbu leen licence b mu am nag jafe-jafe bu rëy rëy bu ci am mooy ci terrain bi boo demee ba tey yaa ngi fay fekk ñaari hiérarchie ci benn corps technicien supérieur yi ñu ni toog leen ngeen di xaar dañ ne loolu mënuñ koo d'accord bokk na ci li ñuy xeex beneen bi nga ñëw ci benn kër fekk fa njaboot ju bari mooy médecin infirmier sage-femme technicien supérieur woon jàpp naa ni li ñuy payoor bi ñuy joxe leerul wala doyul ba ma wax cabinet nañ ko xool nuñ ko defaraatee waaye en attendant kat ci wàllu secteur santé jafe na jafe boo xamante ni jàpp naa ni war naa mën a génn joxeegum ay ndàmpaay nga jël benn koor de métier rek jox ko ndàmpaayu ñeen fukki junni nga ne ñeneen ñi ngeen toog xaar loolu mooy tas nga sa kër ndax kenn ku nekk métier ba nga yor dafa am importance loolu nga xamante ni nag état bu ñu ci poussé loolu la ñuy woon nañ ko régler ba mu balaa moo gën a ñaaw Sud FM Euh, askan wa fare ca Mboro daal di wane seen nag maire ci repreneur Aquatech boobule nga xam ne nag nee ñu ndox moomu leen war a sédd diirub ñetti fan jotuñu ko ndax facteur ya ñu fayul ca Senelec askan wa nag tàmbale taay ba tax ñu ciy interpellé nguur gi Babacar Sow. askan wi di yeewoo ci quartier yu bëri yi nekk ci Mboro commune bu nekk ci département bu Tivaouane dañu mer ba futt jamono jii lenn warlu ko lu dul Aquatech bi nga xamee ni moo rangu ci wàllum a nee nañu daal ak watek lu toll ci juróom-ñaari weer a ngi nii ci li ñu gëstu fayul facture Senelec yi loolu nag neexu leen benn yoon ba tax sax nee nañu ak watek dafa leen di foowee ba tax sax ñuy sànnik yoox jëmale ko ci nguurug Sénégal rawatina kilifa yi nga ko ndogali ci gox bi Mamadou Ngom Seck mooy wax ci turu kan wi. mooy njaqare ga nga xamante ni ci lañ nekk tey jii nag nekkaan nañ ci njaqare loo nga xamante ni comme ni kolof di waxee lu ëpp tuuru te ak watek ñu ngi bëgg nag ëppal bu baax a baax a baax a baax ndax li ñu yor muy wàllu ndox ak ni mu mel ci doomu war te jamono ji ñun waa Mboro la seetlu mooy dañ koy caaxaane dañuy caaxaane population bi lu mu gàtt-gàtt weer wu nekk du defee recouvrement fii ci Mboro mën naa am enveloppe de treize quatorze ba quinze millions de recettes Aquatec tey ñetti fan waa Mboro toog mun ñoo am ndox ñu li ko waral du dara lu dul Aquatec moo amel Senelec une enveloppe de vingt millions boo nga xamante ni ci juróom-ñaari weer a ngi nii yoo nga xamante ne Aquatec fayul Mboro loolu lu doy la lu ñu naqari la lu ñu metti la pour dëggal rek ni ñoom caaxaan moom ma leen findi pour dëggal ni dañ fee ñëw xëy na ngir wut alal dem seen yoon nu ne nag jooyee nañ ko ni ba tax na ñun ñu ngi woo état bu Sénégal encore woo les autorités déconcentrées de l'état yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk la circonscription de Mboro en l'occurrence le sous-préfet mi nekk le patron donc de Mboro ak le préfet xamal li nga xamante ni ni moo di a am am ñu def kemtalaay kàttan ngir jokkook jëwriñ ñu nekk ci Aquatec waaye day mujjita antu Tivaouane Babacar Sow pour Sud FM. Babacar ñu daal di dem fële ca diwaanu Kédougou ak la fa daal di xaw ci diirub benn ayu bés juróom benn nit daal di ciy faatu loolu moo bàyyeekoo nag ci suuf si màbb ci ñenn ñi nga xam ne gasum wurus moo leen daal di yóbbaale acteurs yu société civile euh, di sàkku nag ñu daal di càmbar li aju nag ci état généraux anam ba ñuy gasee wurus ca diwaan boobu di Kédougou Boubacar ñuy faral di nemmeeku ci jot na ay waxtaan yu yaatoo yaatu Mor Kouma mooy njiitu association pour la promotion des droits et du développement local bu Kédougou. ndax boo xoolee xale yi ñu fay dee bëri na ay at si ginnaaw euh, nguur gi commencé woon na di joxe ay carte waaye fekk nañu loolu tamit dañ ko tàmbali rek dal di taxaw kenn xamul euh, la ñu doon def baax na kenn xamul baaxul ndax mosuñoo toog saytu ko saytu defin wi ak na mu doon doxe est-ce que jaadu na wala jaaduwul saa su nekk boo toogee ci ci weer bi lu mu bon bon di nga dégg ne am na ko dee wala am na teen boo xamante ne ni màbb na nit ñi dañoo gaañu yóbbu nañ leen hôpital tey xale ñi si ëpp tey ñu ngi si juraay di daan seen doole donc yaakaar naa ne ñooñu sécurité ba war euh, nguur gi moo ci war a njëkk a euh, taxaw te doon na loo xamante ni aussi jéggi na dayo ci wàllum insécurité ndax ñoo ngi bokk frontière ak Mali te ñëpp xam nañ ne Mali la fa nekk euh, dalul xel dalul xel donc loolu bu buñ ci jógul rek mun nañ ñu indil ay jéye yoo xamante ni ndax nationalité yëpp a ngi ci biir façon feebar yëpp a ngi ci biir xale yi tey dañuy bàyyi njàng mi ngir dem wutum urus parce que dañu leen naan njàng mi amul mujj te utum urus bi mun nga dem tey ginnaaw suba nga am fa ay millions yu dul jeex donc yooyu yëpp tax na ñu yaakaar ni daal tey état généraux euh, orpaillage fii si Kédougou nguur ji daf si war a taxaw wax dëgg yàlla. ci diiru semaine xayma nañ fa juróom-benn bakkan ci rot ndax suuf suy mab Wansangran ak xaraxee na la woon dëmb ci talaata ji Samba Mbougou moo ci topp Boubacar Tamba doon cee jokkoo fii ci Kédougou rajo Sud FM. Boubacar ñu dem ca Kaffrine foofee nga xam ne dañ fa amal ab ndaje conférence régionale boo xam ne la ñuy daal di fexe yemale am ca la ñuy tëralee ci gox-goxaan yi jaarale ko ci juróomi banqaas nekkoon na occasion ci ña ñu daal di fal ci bokk moomeel ya di élus locaux yi administration territoriale bi ba ci service yi nga xam ne ñoo yore wàllu liggéey gox-goxaat yooyu la ñu daal di càmbar nag lépp bépp jafe-jafe bu région bu Kaffrine daal di nag am daanaka secteur yu bari la daal di nag laal ndax région bu euh, doctrine euh, boobu ne ñu daal euh, ndóol na lool rax ci dolli amul benn euh, industrie ba mu mën rek dalle ay liggéeykat rax ci dolli itam yoon yu baax ak l'école ya ñuy jàngee ba ci sax courant ak ndox am na dëkk yu bari yu ko amul région boobu ñu jàppale mu ngi ci zone rouge bi ci wàllu développement Kaffrine Mamadou Camara. région bu Kaffrine moom lañ jëloon comme expérience pilote pour nag ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllub jafe-jafe yi askan bi am ci wàllub courant ak ndox ak wàllu njàng mi ak tamit mbirum wërgu yaram muy ndaje boo xam ne bi tax na fanweer ak ñett maire yi nga xam ne teew nañ wala ñi leen fa teewal ak ñi nga xam ne ñoom lañ tappal ndomba tànk ak service yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci fànn boobu weccoo nañ xalaat ci jafe-jafe yi nga xam ne région bu Kaffrine am na ko Mayacine Camara di secrétaire d'État auprès du ministre du réseau ferroviaire doon maire commune Koungheul moom it yaakaar na ne daal waxtaan bi am na solo waaye nag war na mun a am ngëneel Mayacine Camara. ñëpp ci war a dugal seen loxo te maire yi ak ak président conseil départemental moo ci war a jiital loxoom identifier problème bi documenter ko bokk ko dem négocier financement yi parce que am na état baa ngi taxaw pour dimbale partenaire technique de finance et financier aussi ñu ngi taxaw pour dumbale nit mais su fekkente ne problème bi ràññeewuñ ko saafara saafara du mën a am su fekkente ne documenté wuñ ko aussi saafara du mun a am donc les responsables au niveau des mairies ak conseil départemental ñu ngi di ñaaxaat encore une fois ngeen di documenter seen projet yi di ko identifier di ko documenter di dem vers le financements qui existent encore ci lu ngeen mën a dimbale le ministère ci loolu ngeen mën a épauler aussi le président Macky wax nañ ko fi amul lu mu deful ci région bi ñu nekk nañ fi traversé nañ ay mandats yu bari waaye fi ñu jógee dafa sori fi ñu jógee dafa sori li manqué woon dafa bari trop ba xam ne tey li président Macky Sall def def lu mu liggéey liggéey liggéey toujours dañuy am sentiment que ne encore dafa des. xam ngeen aussi suñu population yi xamuñ les problèmes résolus les problèmes non résolus lañ xam donc concentrez-vous davantage sur les problème non résolus documentez-les et allez vers les finances. muy ndaje boo xam ne bii Mansour Faye di ministre bi ñu dénk wàllub développement communautaire ak équité sociale ak territoriale moom moo ko jiite woon Kaolack. Mamadou Camara Sud FM. Euh, ndaje acteur communautaire yooyu daal nay am fii ci euh, ndakaaru Mamadou ngir di euh, gën a aar xale yi ci Grand Yoff RADDHO daal di tàggat ay membre yu fare ci commité local bi aar xale yi ci seen ak ak seen i yelleef bu ko defee ñu gën rekk daal di taxaw ci la sax kii di ku Kouna Thioye nekk coordonnatrice bi comité départemental bi aar xale yi sàkku nag lu waayeen ca rëdd ñu daal di koy jëfee ñu déglu ko Moust Amadou Moustapha Dia. am leen acteurs ñuy woowee ay acteurs moo tax ñu ne tey dañuy ñëw jéem a lëkkale ñooñ ñëpp nga xam ni métital xale yi nga xam ni ñi ngi koy def mais ñu koy def dañ koy def ci kër gi la lay jóge wala ci quartier bi wala ci école bi wala ci daara te yooyu yëpp ci gox la euh, gox la bokk rado tànn si ñaari euh, commune muy parcelle ak Grand Yoff pour liggéey ak euh, acteurs yi fa nekk ànd ko nag ak mairie bi ñuy gën a ñaax état ndax dañu seetlu ni jafe-jafe xale yi day gën a tar au lieu muy wàññeeku day gën a tar ndax xëy na état teg na ay matuwaay mën naa wax stratégie nationale de protection de l'enfant nga xam ni suba dinañ ko fi càmbar mën nañoo wax itam PAMOD muy projet d'appui à la modernisation des daara nga xam ne depuis 2014 la ko président de la république lancé mu waroon def ñeenti at mais ba léegi nii gisaguñu daara boo xam ne nii bu moderne bu ñu réceptionné mu commencé fonctionner yooyu muy ay mbir yoo xam ni dañuy rappeler état ay responsabilités ak ay engagé que ni weesu na jot que xale yi Sénégal ñu jóg ci ñoom gën leen a aar gën waaye nii ñu gis métit yi ñu gis façon métital yi ñu gis ñu koy teg xale yi bu continuer du baax te itam day day poser des problème de de sécurité est-ce que demandé wu nañu xale yi nga xam ne ñoo nekkoon ci mbedd mi am na ñaar fukki at lan la ñu doon tey tout le monde sait gis nañu Sénégal problème de sécurité yi muy jànkonteel mais ñan la ñan ñooy def jéye yooyu ana xale yooyu nga xam ni ñaar fukki at ci gannaaw ñu ngi woon ci mbedd mi lan lañ doon fan lañ nekk ak lan la ñuy def loolu defe naa ni ay laaj lañ yoo xam ni yu samp yoo xam ni état war na ko dugal ci politique de sécurité bi muy tëral est-ce que ñun dañu war a toog di xool rek ñuy rey xale yoo xam ni defuñu dara c'est des innocents ñu war leen a woon jàngal war leen woon aar suñu feebaree ñu faj leen dañuy toog ñu di leen métital ba ñu ñàkk seen bakkan parce que nag en fin de compte ñun ñëpp ku nekk am nga si part de responsabilité et suñu bàyyee lii di wéy ñun ñëpp nous serons coupables Eh, ñu daal di desandi ak second compact MCA Sénégal bi war rek tàmbaliwaat ak programme mu ñetti téeméeri milliards ak lu tegal eh, te États-Unis daal di koy financé wala la ci ëpp ndax fanweeri milliards yi nee ñu état bu Sénégal moo ko ca daal di nag dugal ngir financé banqaas yi ci mel ni wàllu eh, infrastructure électricité waaye itam Ndakaaru yóbbu ko ba ci nag diwaan yi nekk ci mim réew Hadi Sène ñu daal di koy xaatim fukki fan ci weerub décembre atum 2018 ñaareelu compact bu MCA Sénégal dina daal di door ay activité am ci at mi comité de surveillance bi nag daal dinañ koy installé ni ki tey ngir rek mën a jëmmal yooyu le projet Mohamed Boun Abdallah Dionne ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République di conseil de surveillance bi nga xam ne mooy toppatoo mbiri compact compact nag nekk ndimbal bu takku boo xam ne Amérique moo ko def Sénégal jox ko ko di nekk ndimbal bu takku eh, boo xam ne moom ci mbiri courant ah, la ko président bi yoon féetale pour euh, liggéeyu gouvernement bi it nekk liggéey bu gën a gaaw. bile compact nag ñetti projet la daal di ëmb mun nañ ci wax yeesalaatu réseau transport électrique bi fexe ba ñëpp am courant waaye tamit ay coppite ci wàllum institution yi lekk jëm ci wàllub énergie Mariam Ndoye Decrène di coordonnatrice UFCMCA Sénégal. ligne courant yu ñu war euh, def ci autour de Dakar nga xam ne moom moom moo catalyser tontu ci demande euh, courant bi euh, aussi euh, ci wàllum accès ci biir dëkk bi donc mais aussi mu am ay réformes yu bëri yoo xam ne dinañ ko def ci réforme yooyu li leen jublu liñ ci jublu mooy yokk viabilité financière u secteur bi. conseil d'administration bi nag ñu daal di teg pàcc mu rëy la ngir rek mën a doxal yooyu la projet nekk ci compact bi yeneen i étape nag war nañ ko daal di def lu ci mel ni tabb directeur bu bees bu ñu sukkandikoo ci ambassadeur États-Unis fii ci mondial du Tulinabo Michingi MCA Sénégal 2 waa États-Unis ñooñu daal di baaxee rek ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk ci suñuy koppar jaarale ko eh, ci Millennium Challenge Corporation bi nga xamante ne lu ko tax a jóg mooy fexe rek xeex ndool daal di sukkali comme koomu réew yi nga xamante ne ñu ngi ci yoonu développement. Euh, jeexale ko ak ambassadeur bu état bu Palestine fii ci Sénégal moom la muy ñaawlu mooy plan waa wutum jàmm bi nga xam ne Donald Trump daal na koy nag teg jàppale ne euh, complot la dañ ko lal ndëgg sirax ci jàkkaloom ak taskatu xibaar yi mu ambassadeur bi di leeral ne euh, doomu Palestine yi li ni mel duñu bàyyi rek mu jàll deal boobule la mu bëgg sax mooy ñu amal conférence internationale bu ko defee ñu gën dooleel wàllu droit ci àdduna wërngal këpp jëme ko ci peuple bu Palestine ab sa iliman wan si jàkkaarloo mag taskatu xibaar yi tey jii ci alxamis gi ki nga xam ne moo teewal réew Palestine si suñu réew féddali na dàq bi nga xam ne moom la doomu Palestine yëpp dàq plan bi nga xam ne moom la Donald Trump siiwal talaata bi ñu génn te mu jëmale ko ci Proche Orient boobule plan nag docteur Safwat Ibrahit nee na du lenn lu dul ab complot complot boo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu Palestine ñu nërmeel ko bu ñu sukkandikoo ba tey ci ambassadeur bi plan wu Trump bi le nag dafa ñëw rek déclaration bu Balfour te mu bawoo ci ndaje bi congrès juif mondial doon amal ci atum 1897 ci bal ci Suisse ginnaaw gi mu ñaawloo fu ñaaw la yem boobu le plan ambassadeur bi nee na Donald Trump di président l'Amérique ci la bëgg a jaar ngir jàppale xaritam bi nga xam ne mooy premier ministre Israël di ñette Netanyahu te nga xam ne coow dakaa topp ci réewam benn bi jëm ci wàllu guerre beneen biit jëm ci wàllu lajj bu baax a baax ci wàllu élection te amatul doole gi mu amoon ci wàllu politique docteur Safwan ne Donald Trump ci boppam am na lu ko doy fi mu toll nii ndax congrès gi daal mi ngi fexe ba dugal ci bopp américain yi ne seen président bi daal du waaja docteur Safwat Ibrahim di fàttali ni waa Palestine moom du ñu bàyyi benn yoon bi le plan di jàll te danañu xeex na mu waree sàkkuteefam mooy ñu amal benn conférence bu mag boo xam ne l'Amérique sax mën na ca teew wante yeneen dëkk yi dañ ciy ñëw it loolu yëpp ngir ñu jagleel ko Palestine ci fàttali plan bi nga xam ne moom la Donald Trump siiwal ci talaata bi ñu génn nag dafa bëgg daal jël Palestine yóbbu ko ci dëkku dëkkaan yi nga xam ne ñoo wër Jérusalem Est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 ñu daal koy nag door rek ndaje bi ñu daal di tëj tey ci ndaje jëm ci wàllu nag environnement euh, bu secteur bu pétrole bi ak euh, gaz bi nañuy def ba daal di koy aar ak Sénégal opportunité mu ca daal di nag am nekk na la nga xam ne amal nañ ko ci seen nag waxtaan Dominique Kama ni yëf yi di joxe ci wàllum pétrole ak tamit nan la ñuy def ba exploitation pétrole bee gaz bi du indi ay gàllankoor ci alam bi waxtaan yi ci yile thème lañ ko doon amal ci bile bés bu mujj sommet bi ñu jagleel bassin sédimentaire MSGBC fii ci Sénégal lii di aar alam bi ci exploitation petrole beeg gaz bi dañ ko jox gëdd bu baax bu ñu sukkandikoo ci docteur ay Sy di conseillère juridique ca Petrosen environnement il faut nga préserver ko mais préservation croissance économique durable donc loolu la loolu mooy norme yi yooyu mooy principe yi am na nu muy doxee te boo xoolee convention d'Abidjan bii ñu ngi jóg ñu ngi ñëw léegi pour pare ko ci liggéey bi am na ñu bari état du Sénégal ñu ngi nekkoon ci liggéey bi yónnee woon na seen ndaw ci foofu te ñu ngi continuer liggéey te loolu mooy convention bi nga xam ne bu gën a nekk ci kaw euh, si vraiment ay standard au standard lañ koy wax suñ ko mënee waxee noonu. disposition yu nekk ci code pétrolier wu 2019 ñëw nañ dooleeku ci bile aar bu ñuy aar. alam bi docteur Aïssatou Sy day gën a def ba intérêt état du Sénégal li muy am ci partage bi ñoŋ bu ñu si jógee it doomu Sénégal yi war nañ mën a gis seen bopp ci exploitation pétrolière bi moo tax léegi di nga gis notion contenu local dugg na si luy pouvoir privé sénégalais bi mënee bokk ci opération pétrolière beneen bi mooy tamit loi bu ñu wax répartition des revenus mooy nu ñuy xool comme bu jógee ci pétrole ak gaz naka la ñuy def ba nga xam ne euh, sénégalais bu nekk dina si war a am au moins ab cër lu ci muy revenu bu quoi nuñ koy defee partage. gannaaw ñetti bésu waxtaan ci li jëm ci bassin sédimentaire MSGBC réew yu bokk ci bile bassin dàq ñu boole seen tex yi ci lépp lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz. pratique harmonisée la ñuy wax maanaam di gis nag dina am ay différence petit à petit am ay différence yu ndaw muy Sénégal wala parce boo xoolee suñ environnement des affaires mooy ute waaye lépp lu ko tënk socle bi boo xoolee benn la. ñu daal di rek fàttali ne nag lu aju ci potentiel bu Sénégal am ci wàllu nag pétrole njàngat ba ñuy def ngir xool ci biir suuf si fan la daal di nag euh, yem ngir ñu mën ko exploité ci la nekk bu ñu sukkandikoo ci géologue bi nekk ca Petrosen di Ami Sila ñu déglu ko ba tey ak Dominique Camara. bu dee champ wu gaz bi am na quatre forage yu fa am parce que dafa am benn forage bu am si benn anticlinal bi euh, trois forages yu fa am muy gëmbal gëmbal Sénégal la nekkee gëmbal mu ngi côté

liggéey nañ si di si liggéey di ko étudier ak sismique bi pour gën a xam potentiel bi fan la nekk lan lañ ci mën a am comme retombée ak tamit retombée yooyu nan la mënee dikk ba si sénégalais yi ñëpp gis si seen bopp. loolu mooy rôle lu Petrosen ingénieur Petrosen yi seen rôle mooy di saytu suuf si xool ban potentiel moo fa am potentiel boobu nan bu ñu amee découverte nan lañ ko waree exploité ak nan la mënee jëriñ askan wi. dafa am bloc yoo xamante ni euh, si ultra dib bi la nekk mooy fi nga xam ni moo gën a xóot mu ngi dem ba ay 4000 mètres de profondeur dañu ko ibbi am na yeneen tamit bloc yoo xam ne nekkuñu si 4000 mètres de profondeur mais au total c'est 12 yoo xamante ni ibbi nañ ko. pour que euh, compagnie internationale yëpp ñëw def ay investissement Sénégal parce que y a un potentiel euh, bassin bi existé na parce que y a des découvertes et on peut dire que c'est sous-exploité kon ñëpp nañu ñëw compagnie internationale yi liggéey fi def fi ay études ñu xool lan ak lan moo fi am ba nga xamante ni askan wi yëpp dinañ ko mën a jëriñoo